voilà euh, gis ngeen nag euh, euh, aventure équipe nationale bu Sénégal fii lay yem ci li nga xam ne mooy huitième de finale du ñu def comme deux mille deux deux mille deux demoon ba quart tey jii rek comme ngeen ko cette année xamee Sénégal dafa dal ci équipe boo xam ne moo ko ëpp niveau loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu jàngat ci match gis nga ambiance yi ngeen daan am bu Sénégal daan gagné yooyu doo ko am. dégg nga ba tax na fu mu nekk nii eh, li ñuy wax sénégalais yi eh, sama eh, suñu naataango yi ñu ngay dem léegi il faut que la ñu jéem a xool ndax dina am ñi nga xam ne dinañu mën a wax ci li nga xam ne moom mooy moom mbir bi il faut le dire il faut l'accepter tombé nañu ci le plus fort kon nag mu ngi noonu on a été battu sèchement par trois buts à zéro lan moo doxul mooy Sénégal euh, amul benn niveau boo xam ne niveau bu euh, yemb la niveau boo xam ne euh, mënoon na rivaliser ak équipe bu Angleterre bi nga xam ne dégg nga ah dégg nga équipe bu Angleterre boo xam ne moom vraiment mënoon na kiyante ak moom dégg nga mënoon na fexe ba def loolu pour mun a gagner li nga xam ne match bi la dégg nga Euh, kon nag mu ngi noonu comme ngeen ko gisee am na ay moment yoo xam ne Sénégal euh, mënoon na ko euh, mënoon na ci dugal <laughs> y a eu des occasions pour le Sénégal mais malheureusement occasion yooyu dugaluñu ko bon léegi nag xaw ma nag li nga xam ne mooy Sénégal yi ba léegi génne guñu ñu xool <laughs> c'est dañuy xool rek ñi nga xam ne ils sont découragés ñu ngi dox ndànk-ndànk Euh, ku ci nekk mu ngi topp di ñibbi c'était pas euh, euh, vraiment évident dégg nga waa gars yi ah waaw waaw waaw dégg nga nee ñu naan Aliou Cissé la Aliou Cissé bon voilà léegi nag mu ngi noonu bon noo gisee li nga xam ne nag moom mooy kii bi match bi. waaw bon match bi moom damay jàpp su ma fekkee sportif la fair play war ma jiital. waaw anglais ñooñu mën ñooñu dóor. ah donc ku la mën moo lay dóor tey anglais ñoo ñu mën mhm. sur tous les plans ñoo ñu dóor donc ñu leen di euh, féliciter si victoire bi encourager suñu équipe ñu ñibbi defaruwaat préparer deux mille vingt cinq pour défendre suñu titre préparer deux mille vingt six am nañu joueurs yi am nañu vraiment euh, vraiment talent yi maintenant tey dañuy defaruwaat il faut que ñu nekk sportif ñu am fair play boo demee ak équipe bu la mën dóor da koy nangu tey anglais li ñu fi wane si football vraiment dañu nangu ni ñoom ñoo ñu mën tey te loolu mooy football ah donc te bi ma gis nii tey mu gaye ñu dem naa ni ah bu fekkee football mooy logique mooy jiitu ba pare équipe bu sori lay doon donc ñun nañu liggéeyaat ah. félicité supporters yi douzième gaynde euh, le gouvernement le ministère la fédération le coach et tous les jours mm-hmm. on a fait un bon tournoi on est sorti en huitième de finale on est pas meilleur que toutes les autres équipes qui ont été éliminées donc dañu defarwaat am fair ñibbi si jàmm liggéeyaat pour ñëwaat incha allah deux mille vingt six aux États-Unis au Mexique et au Canada. merci allez merci toute la presse sénégalaise. ok on est tombé sur plus fort est-ce que loolu da accepter. waaw d'accord waaw. waaw moo ñu mën moo ñu gagné c'est ça. mais damay wax toujours comme Nelson Mandela lu ñu ko waxee ci match kenn du perte da ngay gagné wala nga si mais il faut mu am benn bilan bu. waaw bilan bu normal. parce que il faut que ñu leeral. il faut ñu xam. dégg nga pour préparer il faut que ñu. Ah, voilà loolu xam nga loolu la. voilà. partout def dara ba pare doo évaluer. voilà voilà. ñu taxaw xool lan moo doxul. il est moment de. Euh, dafa jot pour ñu taxaw. xool. ah voilà voilà. voilà kon euh, gis ngeen euh, ambiance après le match ah, gis ngeen waa douzième gaynde sama gars yi ah voilà waaw xam naa ne neexul loolu neexul sama gars gis nga ñu ngay dem euh, kon nag voilà euh, gars yi voilà bon c'est bon ah, gis nga nag gis nga nag fu mu nekk nii waa douzième gaynde mënoo cee wax ak kenn waaw ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp a ngay dem voilà donc nag gis nga nag kenn du wax voilà kenn di wax léeg-léeg ñu xool euh, fii maanaam ak ñi nga xam ne eh, ñoo fi nekk dégg nga ah président dañoo dal ci ëkk comme ni ko olof yi di waxee. waaw noo gisee euh, match bi. waaw mais li nga wax rek am na solo on a on a joué pile ou face hein parce que quand même boo xoolee classement bi départ c'était très offensif par rapport ak Angleterre Angleterre ko xam-xam ne c'est une machine. parce que tous les joueurs c'est des joueurs de très très très haut niveau nous on a la marche d'avoir perdu Idrissa

Oui, mais niveau mondial, on ne peut pas dire mondial, parce que nous sommes déjà mondial, ça veut dire que... Non, niveau mondial, madame, les meilleurs... on ne peut pas aujourd'hui dire avec l'équipe du qu'on peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Ça, voilà. c'est la réalité. sa Ça, c'est la réalité. Parce voilà. Aujourd'hui, si Sadio si Idrissa était là, on n'aurait pas avoir un autre, parce on ne les a pas eu. Vous avez des joueurs dans cette équipe qui ont un niveau fini là, parce qu'en Angleterre, il faut jouer à un niveau. Donc, l'idée de son moyen, dajale nañ équipe boo xam ne moo ñu ëpp a taxaw moo ñu gën a organiser wu tactique et technique donc il fallait qu'on perde le match malheureusement on l'a perdu et c'est la loi du sport. qu'est-ce que programme la maintenant li ci mooy revoir tout ce qui a fait de bien. Mm. tout ce qui n'a pas marché. que ce soit technique, finance, organisation et se préparer pour revenir parce que quand a fait deux Coupes du Monde d'affilée. champion d'Afrique également. Passer en huitième de finale, déjà, c'était important. C'était le premier salaire. Nous, nous devons le niveau bi parce que quand niveau bi ñu am sori niveau mondial. voilà donc nag gis ngeen euh, tey euh, dem kenn taxawul amul fecc amul dara euh, parce que défaite bi dafa métti trois buts à zéro euh, donc euh, il faut que lenn ñu nangu benn affaire mooy dégg nga <laughs> voilà gis il faut que ñu nangu benn affaire mooy que on n'a pas le niveau des meilleurs au monde Hollande nous a battu 2 à 0 wan ñu yoonu football. Euh, Angleterre ñoo war kii euh, dóor ñu on a seulement eu des victoires ci ñi nga xam ne ñooñu ay Qatar ay Équateur honnêtement euh, dégg nga il faut que ñu accepter loolu en dix ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal il fallait que on oh, sincèrement Aliou Cissé andil ñu loo xam ne vraiment lan la la question que je me pose moi mooy lan lan en dix ans mu nekk équipe nationale donc lan la liggéey pour euh, lan la def pour ñu am équipe boo xam ne am na vraiment niveau mondial kon nag mu ngi noonu on a perdu euh, léegi nag dañuy dem euh, bon c'est comme ça toujours au Sénégal on perd on ñu bàyyi ñu dem mu jeex kon nag mu ngi noonu gars yi voilà voilà li fi am.